Garga Mbossé ñu nuyuwaat la nga jógee aéroport ñu indi la ba sa kër bi nga ñëwee dugg sa kër loo yëg. waaw sant yàlla rek sant yàlla bu baax kontaan bu baax a baax ci sama gars di leen masawu coono di leen baalawaat àq bu baax parce que li kontaan naa si trop waaw parce que tamit àdduna nit amul lu ay nitam tey ji génn ñëw say nit ñëw accueillir la dalal la dafa neex trop. Hmm. waaw tey moom kontaan naa lool lool wax dëgg yàlla. dafa mel ni tey dóor dóoraat waaw <laughs> ah, góor Gora doo dooraat Garga Mbossé nga gis mais ñi ñi xamante ni ñoo daan nii ñooy Garga Mbossé tey jii bu ma nekk loon mbër sax maa ngi nii la ndax ñi ngi may jëriñ loo xam ne ëpp na làmb hmm. ñi nga gis nii ñëpp kii dama dem tukki sama ginnaaw mu tuddee ma doom ndeysaan def lu rëy hmm. waaw Baye Fall mii ñëpp xam nañ sama diggante ak moom Père Gora Zës du ma leen waxaale ñoom ma Diouf ñii du ma leen ñaar Dev Lamine Tamba Babacar mbay gars yi fii aw ma seen fay. samay xarit lañu te wone nañ ko lu ma nekk ñoo ngi ci. waaw. bi ngay dem États-Unis ci yan condition nga demee woon carrément. Euh, balaa loolu sax damay profité di jaale suñu mag. Bombardier. Mm-hmm. Euh, yàlla dogal na maa ngi doon déggante moom bi mu nekkee France ak frère am. Mm-hmm. Euh, ñu koy sigil ndigaale bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla yërëm ko xaare ko àjjana. Mm-hmm. Euh, comme ñu ngi doog a yegsi bu yàlla defee ñu dallu dinañ ko jaale incha allah. waaw di ko jaale monde làmb yëpp tamit. waaw circonstance yi ñu demee mooy mooy ku war a voyager voyager rek parce que yàgg naa la wax nii man bokkuma ak gars yi nga xam dañ naan foofu rek ñëpp jóg. man lépp lu may def sama àdduna dama ciy waxtaan samay kilifa et dama siy xaar temps. tey jii yàgg naa am combat ñu ama lu tax préparé joo ma ne leen su ma amee combat bu ma jaral dem su lu mu mënta am fii naa ko wuti n'est-ce pas. tey jii yàlla dogal na ko te amuñu komba kon tamit xëy na noonu la ko yàlla bëggee woon rek. waaw lu jot rek yàlla da ko yombal quoi. c'était la première fois nga tukki. ma dem États-Unis. nga dem États-Unis. waaw. Hmm. waaw. à États-Unis waaw si daan nañ génn sax mais ñu ngi doog a dem États-Unis hmm. waaw bi nga ñëwee ak ni nga doon déggee làmb ak bi nga ñëwee ni la làmb gatandoo nga ñëw gis say am di jàmm say xarit presse bi ñëpp ñëw Garga Mbossé Garga Mbossé lan nga yëg waa contentement rek di leen masawu coono bu baax a baax parce que aéroport ja sori na ngeen bàyyi seen yitte dawal seeni oto bàyyi seen lépp bàyyi seen i nelaw guddi bii nii. Hmm. ñëw rien que pour benn jëmm bu ñaax solo bi. Hmm. loolu moom ñu ngi leen ci masawu coono bu baax di leen remercier encore une fois. Hmm. waaw di sant nag waa fi ma jóge parce que dañ ma jàppale. ngay soog a ñëw ci dëkk teg la ci condition dugal la ci kër di la jox ngay lekk di la jox ngay naan toppatool la sa lépp jox la oto. bàyyiwuñ dara. te ndimbal gi fii la commencé. parce que père góor ma juuf su ma demee États-Unis yàlla ak ñoom la ñoo def lépp sama grand Lat Diop moom tam maa ngi koy sant bu baax moo ko tàggoo na ko damay dem dafa yëg xaalis bari dama defal sa argent de poche te loolu tuutiwul di ko jaarale si Bakary ak euh, Papa Ndiaga di ziar euh, Cheikh Sow mi nga xam ne këram laa nekkoon papaam yaayam frère soxnaam ay soxnaam ñoom die nga xam ne moom ma doon toppatoo guddeeg bëccëg waaw affaire yi moom day dàq xam nga mbër moom lekk rek la bëgg sama gars yi foofu ñoom Aram Ben Souda bàyyi ma kenn teg naa xol si loxo Aram Ben Souda am na koo xam nag daf ma menacé ne su ma ko gërëmee mu bàyyi ma hmm. mais doom nday xamal lu ma la waxul <laughs> waaw maa ngi siyaar ñëpp bàyyi ma kenn ak grand boss sama boog grand mi nga xam ne moom moo nekk New York moom aussi vraiment taxawu na ma ci côté yëpp waaw gars yi dañoo baax dama dem fekk fa ñoom yàndaa ñoom booy njaay hmm. jël ma mel ni man teg ma foo xamante ni man sax daf ma jaaxal bàyyi seen liggéey lu ma soxla ñu taxaw ci li ma defal seen alal loolu tuutiwul saal yi lépp gars yi ñoo ko fay. trois salles fu fu ma neex dem entraîner am ay coach te ku ne xam na ne personnel training dafa cher euh, États-Unis te lépp dañ ma ko lijjanti la waaw may entraîner def li ma war a def kon sant naa leen bu baax a baax a baax. ñaata séance nga doon entraîner par jour. non la plupart nag benn séance rek. yenn saa yi daal nga def ñaar te ñaari sax footing lay doon daw euh, bu fekkente ne ngoon gi dama war a dem salle combat suba gi damay daw parce que parfois combat yi euh, salle bi fa am gars yoo xam dañuy def ay si ay xeetu bëre yoo xamante ne ay technique la yooyu quoi yooyu dañu améliorer sa sa sa kii parce que ñoom boo ñëwee li ñu njëkk xool mooy wàññi sa pois wala ñu yokk sa poids mais poids bi nga yore il faut ñu xool ndax normal la wala normalul xool excès yi nga xamante ni baaxul si yow ak xool aussi bàyyi la nga entraîner sa bopp benn jour ñaari jour ñu xool yow façon li ngay entraîner ndax baax na wala baaxul. Hmm. yooyu yëpp jaar nañ ci ak ñun waaw. bi nga demee ñu ne la commencé entraîner nan nga commencé. liñ ma njëkk a wax kay mooy da ngeen di xaru parce que ñun yaakaar nañ ne dajale affaire yi di yëkkati rek mooy liggéey bi. Hmm. waaw wax dëgg yàlla dama ñëw ñu ne ma yéen moom ku ci amul problème mu genou. nga am hmm. problème mu nerf tôt ou tard boo ko amul léegi di ko am après. wala ngay am ay expliqué nañ ñu ci ay effets secondaires parce que tam dara boo ci nekkee euh, day jaadu nga gëstu ko. Hmm. mais maa ngi ciy woo aussi sama mbokku mbër yëpp que ñun ñëpp suñu métier la. xam naa ne du fi wax lu kenn xamul parce que am na ma fa jiitu foofu gis nañ lu ma gisul aussi. Hmm. mais man bu may wax ñi nga xam ne maa leen tane moo tax may wax mais ñi xam ba pare waxulu ma leen. Hmm. suñu rakk yi laay waxal ñu xam ne sport benn temps la danga koy passé dem ci leneen. il faut nga jéem ko professionnaliser de la sorte que boo paree di soxla sa bopp yow. loolu lu jar a bàyyi xel la. waaw dañ doon gis mbër jóge États-Unis ñëw yokk volume indi poids ñu ne dafa liggéey mais yow nga dem États-Unis ñëw indi woo volume mais lañ gis loo fa daan def kon. non ku nekk ak sa kii rek am na loo xam ne soo ko waxee wax ji day mujjee sol yére te bëgguma tooñ kenn. Hmm. mais déggoo li ma la expliqué dañu lay booleeg ay nit man bi ma ñëwee bi ma waaj xoolee daf man njëkk dawloo dawloo ma une heure de temps sans arrêt. Hmm. xool ndax yow sa xool bi attan na sa yaram xool sa graisse nan la nan la def ak sa sa sa muscle xool yooyu yëpp comprendre nga. Hmm. après di la defloo ay xeetu entraînement yoo xamante ni yow da ngay da nga naan sax kii day yàq sama temps quoi li jëriñu ma dara. Hmm. parce que da koy xeeb parce que yow chargé ay poids nga xamoon wàcc ci tànk yi yaa ma gën a xam def mu hmm. diis xam nga nga daaj sa bopp dem ñibbi. mais dañ lay defloo yoo xamante parfois mu am muscle yoo xamante ni yii ba nga nekkee xale la nga doon yëngu. gars yi dañ koy dañ ciy xëy di ci gont. waaw di la defloo yoo xamante ni boo ñibbee reer sax doo ko mën da ngay tëdd nelaw bu baax a baax xam ne yow yaa ngi liggéey liggéey bu baax mais aussi yenn poids yi dañ lay jox ay conseils ci biir liggéey bi yi nga xam ne même boo leen gisatul tey di nga mën a demal sa bopp di wax ne boo amee taay nangam poids nangam nga war a yore pour nga mën a am vivacité boo soxlaa sa bopp nga jot sa bopp poids sangam nga war a yore et puis bi kaw gi ak suuf gi lii mooy équilibre bi yooyu yëpp dañ la koy jàngal hmm. par exemple. tey yow nga am cinquante kilos nga am combat fii ak deux mois mën nañ la ko defal quarante te du la gaañ walla nga am quarante kilos nga am combat fii ak deux mois ñu defal la ko cinquante wala quarante cinq te du la gaañ loolu dañ la koy jàngal mais aussi yow lépp looy lekk wala looy naan danga leen koy wax ñu xam ne yaa ngi jël lu baax wala yaa ngi jël lu baaxul waaw. loolu est que boo ñibbisee fii di nga ko mën a continuer. waaw ñu ngi jëm rek ndax xel moom jëriñu lu dul xalaat. am na loo xamante ni moom boo ci defee sa temps suñu liggéey la yaakaar naa ne dañ ciy mën a yokkoo rek dinañ ci góorgóorlu incha allah. kon Garga Mbossé am na xaalis ndax nga jóge ci Moussa Ndoye ngeen bëree nga daan ko ñu dégg amoo combat nga dem États-Unis kon am nga xaalis. waaw nit de bu nit ñi di wuti xaalis yow dama wuti ay nit man moom am naa xaalis parce que am naa ay nit yu am xaalis am naa ay nit yu ma gëm. Hmm. ki ki ëpp xaalis àdduna mooy ki gën a doylu ndax boo yoree ay milliards doylu woo amoo dara ndax sa xel du tranquille man li ma daan wax chaque jour lay wax man judduwuma ci ay milliards judduwuma ci ay millions hmm. man ci yar laa juddu ak teggin bu ma amee bu ma ñàkkee kenn mënu ko xam parce que loolu lañ ma yaree mais ñi ma am ñàkkuma dara parce que lu ma bëggee ñu defal ma ko la preuve ay mbër yu ma ëpp dayoo ñu ngi ci dëkk bi mosoo fi gis ku jóge aéroport am lii ma am ne lan moo ko indi ñi dañuy bàyyi seen yitte dawal seen oto def seen essence bàyyi seen nelaw loolu moo daax milliard hmm. waaw sant naa yàlla bu baax. ana say ñenn ñi nga xamante ni yàgg nañu ànd ak yow ci làmb ku ci mel ni tey nga Camara sa coach tey ngeen changé waat écurie Dóor waar seen première sorti da ngeen koo ñàkk est-ce que yéen bàyyi loolu ci xel. waaw sport moom kenn mënul nekk ci kaw atu tout moment. Hmm. sport nga gis ci àdduna yëpp laa wax de. yi ma xam man mosoo gis lenn lu éternel nit ku nekk fenn rek jëloon nañ fi pied ah. ren dañuy dem def démocratie rek jox hmm. keneen mu jël bu beneen ne ñu ñaan yàlla ñu jalaat hmm. écurie bi ay mbër fi nekk te avant ñun suñuy mag la woon sos peut-être hmm. ak ñoom deev ñoo xamante ni tey ñun mën naa ne ñoo ñu wan yoon nest pas après ñun tey suñuy rakk la Garga 2 mi ngi fi Ramdan a ngi fi Moussa Balla Gaye a ngi fi keneen ak keneen a ngi fi dëgg boo yaa ngi fi ñoom bébé garga et après ñoom it ñeneen la affaire yi moom continuité la rek. Hmm. ku yokkul yaa wàññee di ñaan yàlla toujours rek ñuy jëg am ay performance di def ay résultat mais lépp lu ñu war moom ñoo ngi si. Hmm. waaw. ñëwee dugg gis sa yaay daw kottu ko loo yëg. waaw kontaan rek ni ñu ni ñu xamee ni garga di mel ak yaay. <laughs> kontaan rek ak sant yàlla bu baax a baax. ndax hmm. bàyyi sa kër neexul. waaw neexul neexul man. mooy loolu daal waaw mooy loolu sant yàlla bu baax waaw. nga ñëw jub bunt kër gi di fecc fecc bi lan la la la. non damay bëggee rek damaa man sama gars yi nag dama non non dañuy bëggee rek xam nga fii moom relax la ñuy wax fii dara jaru fi ay kii dañuy bëggee dañuy kaf. Hmm. waaw loolu rek la du dara gaa yi boo gisee sa gars yi da ngay xàppi nag parce que lii dama ko namoon nag yaa ma gën a xam. looy wax sa nattaangoo mbër yi nga xamante ne yëguñu woon Garga Mbossé ñëw na léegi gis nañ Garga Mbossé Sénégal lan nga leen non ma aw ma lu ma leen di wax fii moom Garga Mbossé fu mujjee dem bay ñëw gars yi moom miin nañ yoon bi xaw ma kan mais foofu boo nee copp États-Unis dangay xam ne fii moom mbëri moom macha allah xanaa di lancer waat appel rek ndax nit ki tey euh, lépp loo am di ko fooye rek sa moroom a ngi ne siiw jot ci nit liggéey na am xaalis am crédibilité dem fu ne ci àdduna mënul dugg États-Unis tey mburum làmb boo ko doonee. presque soxlaw soxlawoo dara da ñëw ñu xam ne yow mii mbër nga dañ lay may visa kon mbëri yi fi mbëri gis naa fa ay mbër am na ñoo xam ne waxtaan naa ak ñoom ñi nga xam ne mat naa leen conseillé. Hmm. jàpp naa ne conseillé naa leen lu leen war a mën a jëriñ dara comprendre nga ñu respecté seen bopp aussi ba ñu yàkkal seeni i lu jar a bàyyi xel la parce que tey lu gën a ñaaw mooy nga mujj si ndab. moo hmm. xam ni ko kii waxee sax. nga mujjee puso mu réer mu réer. Hmm. merci beaucoup il faut ñu bàyyi xel seen i rakk bu baax te xam ne affaire bi aussi yemul fii. nit nag mënoo koo xalaatal ci ci destin am wala ci dara sànniwuñu xeer kenn waxuñu pour dara maa ngi ziaraat bu baax gaa yi fa nekk. Mm-hmm. ma kenn Ramdan Yanda booy njaay mbër yëpp daal mbër yëpp ñi nga xam ne xam mm-hmm. maa ngi ziar ñëpp dolfu ñoom ñëpp vraiment samay nit lañu ay nit yu baax lañu te gis nañu aussi njàmbaar gi ñu fa nekkee waaw. noo gisee mbër yi nga xam ne yaakaaroon nañ leen ci làmb ku ci mel ne Ramdan dumbul euh, Baye Pël ki nga xamante ni mooy euh, nu mu tuddati Dolfo ak beneen booy bu nekk euh, Yoof tumbul ñoom ñooñu loo leen gisee ñu dem États-Unis rek toog ñëwatuñu. ah mais loolu ñoom ñoo ko xam ñoom ñoo si mën a tontu. mais dañoo amul cër ci làmb te làmb dafa am fu mu leen tegoon. ah waaw loolu dëgg la mais xëy na tam comme li ma la wax rek destin moom yàlla ku nekk fu muy tracé sa destin ku nekk rek ak yàlla fu mu jaarale sa yoon ku yàlla ne fii ngay mujjee rek foofu ngay mujjee. waaw ñaan yàlla daal mujj bu rafet moo am solo mais ñoom ay góor yàlla lañ dëgg. Hmm. parce que man damaa dem ba gisal sama bopp. waaw xam ne ay jàmbaar lañu ñu leen di bëggee bu baax a baax baax baax. Hmm. Hmm. lan nga bëggoon wax loo xamante ne laajuñu la. Euh, defe naa laaj nga lépp de waaw xanaa di santaat rek di ñaan yàlla nag am combat bu gaaw parce que dégg naa gars yi di coow ay grand contre ma waxaat la ko fii. waaw nekkuñ fi nag pour di. entraîné ji ñëw indi doole toog fii di xoole dañoo bëgg jox ñu combat bu saf sàpp Lac de Guiers amul combat ah. nañ ñu ko jox hmm. waaw. Eumeu Sène ku la joxoon avance am ko jël. maa ngi fi pour yëpp. boo ñëwee nga xamante ne mais ko gars yi dañuy tànn. a hmm. dégg naa ko ko tànn saa waay nga xam ne kenn tànn ko xam naa loxo bee tax gars yi tànnuñ ko. Hmm. moo tax tànn ko. la déggee de la jatoo waaw. waaye dafa bëreeg booy ñang mi nga xamante ni moo la daan daan booy ñang gis naa loolu waaw mais loolu du dara làmb moom carré d'as la léegi xanaa gisoo li xew ci kaw. Mm-hmm. Ah, affaire noonu lay demee rek da ngay daan ki kii daan la kii daan ki kii daan kii rek te defe naa bu doon daan ak daanu moo tax ñuy wax. Mm-hmm. am na mbër yoo xam ne kenn du leen tudd sax di tudd seen morom n'est-ce mm-hmm. sama mag la ku ma respecté la. damay ñaan rek su ma mayee ma jël ma mayul ma seeti leneen. waaw mais moom tam day toog di xaar instant bii nii te xam nga xaar bi mën na ñàkk. pourquoi pas ñu tàllal ñu loxo. bu ñu réussir ñu xam ne mën nañ ko bu ñu réussir ñu delloo ñu xam ne du suñu place. mais askan bi combat bi gën a bëgg mooy Garga Mbossé Gouye Gui wala Garga Mbossé Sa Thiès quoi Sa Thiès nag am na loo jot a wax ci moom nee nga combat bi dox nañ ko ay yooni yoon ci moom la la yàqoo yow léegi lan nga gis yow Garga Mbossé ak Gouye Gui baax wala Garga Mbossé Sa xam nga Gouye Gui dama ko fekk stade jaxase ko jaxase yu metti seen kanam génn ko stade bi. Hmm. mu taxaw ne ma bëréew ma ak yow xam nga loolu mënu ma si dara man du ma promoteur mënu ma tëgg sama bopp wax ñaag mën na fi nekk nii ku nekk di coow Garga Mbossé lii Garga Mbossé laa mais ku wéet xam nga ku la mën man mbër musuma yóbbu ardo macha allah mbër musuma dóor ma daw te li ma fi def ci kaaw amul sama morom bu ko def limal ñaata kaaw nga def. kon yow kay yow yaay lim. déedéet yow yaay lim. limal yow. man benn ka kaaw laa xam mooy bi nga kaaw laan 2000. ak <laughs> euh, Aliou Mané. Ah, benn la ñaar laa xam. Ah, Ibou Fall nag lu def. Ah, ak kanaat encore. njaaxum lu ma ko def. kaaw ah ndànk rek. affaire yi moom lu passé sax passé na te hmm. ñooñu aussi vraiment ay champion yu mag lañ yoo xamante ni ñu ngi leen di siyaar bu baax di leen béggee parce que wax ci mbër tam dafa xaw a doy waar hmm. mais nekkuñ fi pour benn mbër ñu ngi fi pour mbër yëpp te mbër loo wax ci moom rek mu yaakaar leneen ak leneen la waaw mais man maa ngi fi pour mbër yëpp. tey bu la promoteur woowoon kar nga jël. Mhm. mu ne la Garga Mbossé damaa bëgg sama combat ak ki nga xamante ne mooy Lac de Guiers numéro 2. Garga ce que doo fi nekk di taaw jox leen ma quatre-vingt wala cinquante. man man ba ma nekkee mbër ba léegi ku mu mës a woo combat ci man rek wax li tax may wax ci presse bi dara. Hmm. nit ñi naan parce que li may wax kenn ko weddi quoi man moo taxee ne diw jox nañ ma ko mu bañ c'est parce que dañ ma ko jox mu bañ dama naan diw moom ma ko jox mu bañ xam nga loolu du sosal nit. Hmm. mbër ma wax na jox nañ ma leen ñu bañ diw moo ma leen jox ñu bañ biñ ma woowee na ma sa combat waa ji ma wowoo mi ngi may dégg dama ko ne demal bu nangoo nga ñëw du ma jël deux fois lu yomb lay wër loolu wax naa ko. lu tax loxo bi lañ ragal. wala ah ban ah, xaw moom moo xam moom moo xam. mais fii moom làmb la. da ngay jël ñi nga war a jël rek mbaa munoo ko da ngay dem ba dañuy sës dootoo am pexe te na nga leen di jël parce que ñun làmb ji soobee yàlla ñoo ngi ci suñu métier la ñoo ngi ci ku ñu jëlul ren di nga jël déwén te lépp luy tax mbër doot nekk fi ñu ngi koy def incha allah waaw. jërëjëf